depuis quelques heures ñoo ngi ñuy yëgal ni am na ay PV yu ñuy créer am na sax yu ngeen gis am na ay tentative de falsification de PV am na ay corruption pour soppali ay PV may wax askan wi lenn rek lu yomb ñun ñu ngi yor suñu PV yëpp xam na ni ñoo gagné xam nga li wóor mooy il faut que le pouvoir se le tienne pour dire il est de question pour que résultat yi nga xam ne moo ñu jox victoire di changer duñ ko nangu du fi amee parce que xam nga li nit ñi di reetaane mooy quand bëgguma sax tudd tur ki ñu wax ni moo wax démb minuit dafa ni leen gañe na trente sur trente départements li mu leen fàtte wax mooy ci trente départements yooyu neuf yi benn député la ñu am da ngeen di wàññi de parce que dañ ne am na majorité ci trente yi neuf yi benn député la ñu am donc lu fa des. te gaa non bëgguma sax egg ci loolu mais dama bëggoon xam dama leen bëgg woon rek nii fa mu awoon pour wax ni am na majorité dafa wékkul fenn. da doon show rekk jarul sax ñu ciy sori mais li am solo mooy li fi ñëpp wax gis nga suñu victoire bi dañ koy préserver lu mu ñu jaral lu mu leen jaral dañu ko jaral il est hors de question il est hors de question que dara di ci buure walla dara di ci changer et dañu bëgg que l'opinion le sache que l'opinion nationale et internationale comprenne que victoire bii ñu am duñ ko négocier duñ ko sàggane te duñ ko ñàkk et rien ni personne du ci changer tarfatal ay ni parce que duñ ko nangu ñiy wax sénégalais yi aussi ni leen victoire bii ñu ñu jox dinañ ko mérité seen soxla seeni bëgg-bëgg seeni dundin moo ñu amal solo li ñu wax ci campagne bi loolu la ñuy def may jeexale rek ci gërëm leen sant leen mais di leen wax ne on doit reste vigilant vigilant gis nga fii ak ñetti fan yi di ñëw commission départementale yi tey la ñu war pare commission nationale bi am na ñetti fan faut qu'on soit vigilant pour que ñu defendre suñuy vote mu yéen askan wi ñun ñu defendre seen vote ak résultat yi mais pour que kenn bañ soppali résultat yi et que nag may attirer attention kilifa yi muy kilifa diine muy kilifa aada képp koo xam ni kilifa nga ci Sénégal ni ëllëg si biir lu fi am rek ce la faute du pouvoir de benn Bokk Yaakaar parce qu'il est hors de question qu'on se laisse voler notre victoire lii ñu leen fi wax su yokkuwul mënul wàññeeku su yokkuwul mënul wàññeeku donc nous vous donnons rendez-vous en septembre pour l'installation de la prochaine assemblée nationale qui sera une assemblée de patriotes une assemblée pour les sénégalais et par les sénégalais pour que nag ëllëgu Sénégal bu bees ñu ubbi ko pour que suñu réew jëmee kanam parce que nag nooteel bi doy na wax ji doy na jaay doole ji doy na tëcc yi doy na rey doy na. On veut un pays pacifié, réconcilié, une gouvernance normée pour que véritablement ce pays se développe mais bu leen fàtte dara du ñu daw du ñu ragal du ñu bàyyi dara jàll cette victoire là elle est acquise et elle ne changera pas je vous remercie félicitations <laughs>